asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme niñ ko safoo di ko def di leen daral fii seen chaîne Dakar People tey nag ñu ngi waat fii Wakam seet si waat kilifa boroom xam-xam bu kenn dul naatable Cheikh Hady Deme ñu koy dàkkantalee borom ba sëriñ bi nuyu nañ la. waaw fay nañ leen bu baax ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaam ala xalqila saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waa kay ñu ngi leen di tatagal bu baax a baax bismillah te nag ñu seet ci la pour amal yow waxtaan waxtaan ci àdduna waxtaan ci xam-xam question bu si njëkk rek bëggoon nañ la laaj parce que jamono yi ñu toll dañu seetlu ni ñu ñuy woowee célébrité ay ndaw yoo xam ne daanaka moom ñu bëri dañ leen ràññee fii ci askan bi wutum buzz daanaka jaral na leen lu ne lu ne ba tey jii sax dinañ def loo xam ne tey jii dafa nekk li nga xam ne dina leen lor mais dinañ ko def rek lépp ngir nga xam ngir nga ngir am buzz ñu bëggoon xam lan mooy sax xalaat ci loolu en tant que sëriñ en tant que porteur de voix. waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam di wax ne li may wax damay wax ne waajur yi nañ yaraat seen doom nañ yar seen doom ci lislaam ndax doomu aadama su fekkee yar nga ko ci lislaam bu génnee dina xam fan lay teg tànkam bu génnee dina xam nan lay toogee bu génnee dina xam nan lay nekkeek ñu war a nekkal waaye am na loo xamante ni dafa rafetut rafetut si si si si ñu ne la jullit nga yow en tant que jullit nga dem ziyaara ji ne dangaa dem màggali Tuuba ziyaara ji si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dem pour uti barke uti tëbbu uti ndollal ngay dem di fa jëlee ji ay bàkkaar dem di fa jëlee ji ay fitna kon su fekkee ne da ngaa jug pour dem ne damay ziyaare ji wàlliwu yàlla dafa am dafa am noo xamante ni noonu nga fa war a demee war nga fa demee ak yiw war nga fa demee ak ëdëb war nga fa demee ak respect su ko defee yow doo fa am benn tolof tolof waaye dem tuubaa waxatuñ nga dugg ci jumaa Touba bi jumaa ji waxatuñ nga dugg ci yéeg si ba ci sorol ba nga ne da ngay def ay sinap da ngay def yu kenn xamul teg sa ay musique muy muy dugg si biir jumaa ji loolu noonu dafa dafa dafa dafa ruslu loolu noonu dafa am ñoo xamante ni jekkut ci ñoom ndax yow su fekkee ne yow àdduna bi ñu bari xam nañ la am na loo xamante ni waroo koo def waroo koo def sax si si biir Touba rawatina ngay dem ba si jumaa ja yéeg ba ci sóoróol ba naan da ngay ay def ay sinap di di di taal ay musique musique yi di génn si jumaa ji loolu dafa ñaawlu waaye loolu yëpp ñàkk ñàkk ëdëb rek loolu yëpp ñàkk gëm li nga doon la parce que bu fekkee doon nga jullit benn fan bi nga xamante ni ngay toog bañ a sinap bañ a eh, def ay estateeg yooyu noonu pour jël fa ay tëbb jël fa lu baax wàññiwu la dara waaye su fekkee ne yow da ngay dem màggal wala nga ne da ngay dem gàmmu nga mel ni kuy dem soirée ah di nga takk sa va naturel di nga di nga di nga def yoo xamante ni teguwut ci lislaam kon yow yow su fekkee ne yiw ngay jëli yow dootoo fa jëlee ti yiw waaye lu nga fay jëlee mooy musiba nga fay jëlee ndax am na wàllu yàlla yoo xamante ni liggéey nañ seen suuf soosu noonu kenn koo xamante ni dafa ñëw pour tilimal suuf soosu noonu da ngay gis ne yàlla dana ko weer comme nu mu weeree ki jigéen kii ngeen di wax noonu lay weeree képp koo xamante ni dafa jóg pour dem ci suuf soo xamante ni suuf soo xamante ni borom dafa liggéey def fa ñaan fa yàlla jàng fa alxuraan jàng fa ay xasida yow nga ñëw pour war a jël ay tëbb ak yiw ci bërëb boobu noonu nga ñëw di fa teg ay musique naan da ngay def ay sinabak yu kenn xamut kooku noonu dañ koy wax ne ko na delloo xelam ci yàlla su fekkee ne dafa juumoon loolu kenn waru koo juumee ndax waroo ñëw si jumaa naan dangay def ay sinab di taal ay musique loolu kenn waru koo juumee mun nañoo baale lu nekk nag waaye loolu kenn waru koo mën a baale ndax loolu du teggin kon képp koo xamante ni mu ngi nekk si yooyu noonu kon jugee nañ ci màggal ñu waajal gàmmu kon su rawatina xale yi jigéen ñi nañ bàyyi xel bu baax a baax si yàlla nañ delloo xel ci lislaam nañ xam ne fo bi dafa am fu mu war a yem waaw soo demee ci bërëb boo xamante ni borom dafa jaayante jàng alxuraan waaj liggéey fa ay dog bépp turu yàlla mu liggéey ko fa kon suufam soosu noonu ngalawaay soo demee foofu noonu toogin fa toog bu rafet te bañ faa yóbbu benn loo xamante ni lu ñaaw la wala loo xamante ni da ngay wëlbatiku génnaat ci internet bi di jéggalu ndax nit ku baax warut fu mu toll naan maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu maa ngi jéggalu nit ku baax dafa war a def lu yiw dafa war a def loo xamante ni dafa ànd ak lislaam man daal loolu laa koy conseillé ak bépp jigéen boo xamante ni ak bépp góor boo xam ne ñu ngi demati ci dëkk yu mel noonu nañ fa toog toogin bu rafet nañ fa nekki nekkin bu rafet nañ fa jàng alxuraan ay xasida wala ñu jàng fa ay turu yàlla moom moo ëpp yiw lool ñu fa nekk foofu di fa nekkee ci yoo xamante ni yàlla gërëmut yonent bi gërëmut si nit ñu baax ñooñu gërëmuñ ko. Mhm. macha allah kaddu yi am na solo trop dénkaane am na solo xam naa bu ñu génnee ci loolu rek dañuy dugg ci waxtaan bi waxtaanee xam-xam waxtaanee mbirum seet bëggoon nañ xam sëriñ bi lan mooy seet ana lan mooy njëriñu seet. waa seet dafa am solo bu baax a baax ndax doomu aadama bu dafa bëgg dara il faut mu xollu ko ndax yonte yàlla ma sallallahu salaam jàngal nañu ko mu ne képp koo xamante ni bëgg na xam ay mbiram mu ne dee leen xool seen mbir si listixaara moo tax képp koo xamante ni léegi la nii sax waaye da ngay gis suñ maam yi njëkk yee bu ñu doon tukki dañu xool yoon wi ndax baax na wala baaxut suñ doon xare ji dañuy wax naan ba bés bi baax na wala baaxut suñ doon déposé ji dara dañu xool ndax baax na wala baaxut waaye tukki ji te xooloo yoon wi wala nga jug dem takk jabar xooloo ko wala nga jug dem déposer fenn foo xamante ni liggéey xooloo ko waaye soo ko xoolee di nga gis ne dina la dimbale bu baax a baax su fekkee yoon wi leer na wala leerut ñu wax la ko su fekkee ne jabar ji baax na wala baaxut ñu wax la ko su fekkee ne tukki bi baax na wala baaxut ñu wax la ko su fekkee fi ngay déposer liggéey jafe-jafe yu ci war a am ñu wax la ko digal la sarax yi nga ci war a def su kàttan yàlla su ko defee soo ko defee yàlla di dimbalal la ci waaye dangay gis lépp lu doomu aadama tëb dugg ci dina tëb génn ci wala mu génnee ci ay jafe-jafe yoo xamante ni du xam nan la moo tax yoon dañu koy xool sooy takk jabar danga koy xool boo buggee ut liggéey da nga koy xool soo ubbee buggee ubbi place da koy xool loolu moom mooy njëriñu seet te seet dafa baax dafa am solo ndax yow miy seetlu di nga leeral say mbir di nga xam ne lii nii su ma ko defee yàlla na ma ci dimbale lii su ma ko génnee yàlla dina ma ci dimbale ndax dañuy wax ne seet soo ko defee ñu wax la sarax yi nga war a génnee nga génnee ko yàlla dina la dimbale bu baax a baax a baax sëriñ bi nga xamante ni tamit mu ngi lay ñaanal foog mu seetal la ndax su la seetalee dina xam sa biddiw dina xam sa rawaan dina xam sa xuddaama dina xam yow lan mooy sa sarax su ko defee bu la ko digalee dina la dimbale dina la jëriñ dina nekk loo xamante ni lu lay lu lay jëriñ ci kanam la waaye boo seetluwut da ngay nekk ci ay jafe-jafe su ko defee loolu mun na la indil jafe-jafe bu nekk daal. mun nañu wax ni mbirum seet dafa nekk li nga xam ne dafa am solo dafa am solo dépp doomu aadama lépp li ngay dugg rek war nga ko xool war nga ko càmbar saytu ndax. nekk na li nga xam ne moo gën ci yow wala nekk na tey jii boo si naroon am jafe-jafe ñu indil la ci ay ñaan ay saafara xam naa dañuy jàll ci question bu topp rek tamit buñ duggee génnee ci seet bëggoon nañ waxtaanee tamit mbirum kaaraange bëggoon nañ xam sëriñ bi tamit lan mooy njëriñu kaaraange ci doomu aadama. waaw kaaraange dafa am solo ci doomu aadama ndax doomu aadama bépp buy dund te amul kaaraange da gis ne bakkanam mu ngi ci xottu gerte ndax kaaraange soo ko amee da gis ne yow am nga protège protégé wu nga si lépp waaye su fekkee amoo kaaraange mun nga dugg ci oto oto bi accidenté yow nga nga nga génn ci àdduna wala kaaraange boo ko amut yow mun nga dem nekk ci bërëbu liggéeykaay ñu ñuy ñuy ñuy dàq ñu am ñu nga xamante dañ leen a bëgg a seppi yow ñu bokk nga bokk si ñu nga xamante ne ñooñu lañ seppi ndax ñàkk kaaraange dama naan la kaaraange daal boo ko amut maanaam yow sa dund daal daanaka yow yow yow yaa ngi si erreur yaa ngi ci erreur bu nga xamante ni lépp loo xamante nii rek ñu ngi koy ñu mu ngi dal nit yow yow jàppal na yow loolu mun na la dal moo tax kaaraange dafa am solo doomu aadama bu nga xamante ni amut kaaraange da gis ne cat lu nekk rek lu nekk rek bul xalaat lu nekk rek mun na ko arrivé moo tax Serigne Fallou radiyallahu anhu bu baax boobu noonu dafay wax ne doomu aadama bu génnee àdduna ñu tekki ci ndiggam li luñ tekki matut kilo maanaam deewut dafa xaru waaye kooku mu ngi jàngale ne doomu aadama waru sàgganee boppam ndax yàlla moo ñu wàcceel alxuraan alxuraan lépp a ci nekk kon doomu aadama bu ci nekk su fekkee ne bëgg na lu nga xamante ne dina ko protéger su ko su ko xoolee ci alxuraan dina ko gis ndax doomu aadama lépp loo xamante ni daf koy jëriñ lépp loo xam daf koy dimbale baax na ci moom waxuñ la da ngay ut loo xamante ni daf lay indil da ngay yàq doomu aadama wala da nga leen indil problème waaye yow defal sa yaram loo xamante ni képp koo xamante ni mu ngi dal sa kaw su ko defee bu dalee sa kaw dina gaañu kaaraange nag dañ koy liggéey ci bunt yu bëree bëri am na boo xamante ni dañ koy liggéey ci bëy bu xonq bëy bi suñ ko liggéey suñ ko reyee dañu koy booleeg làmmiñu bëy bi ak fukk pusu ak benn su ko defee dina am sangat goo xam ne moom lay àndal ñett fan ngay sangoo cangat gi képp koo xamante ni mu ngi la liggéey dina këpp ci moom képp koo xamante dafa la doon liggéey pour nga génn àdduna moom lu bon dana ko dal képp koo xamante ni daf la doon fexal yàlla dana ko weer te képp koo xamante ni jugoon na pour liggéey la su fekkee sëriñ boobu xam na dara su ko su su laalee danaan ko kii kat lépp loo ko def mu këpp ci moom su fekkee sëriñ bu xamul dara nag moom ak sëriñ beeg ñëpp musiba dana leen dal kaaraange tamit dama koy liggéey ci ndomb bii nii ndax ndomb gi ñu bëri xam nañ ko si man képp koo xamante ni yàgg na maa seetaan dina gis ndomb gi nii dañ koy liggéey ndomb gi mu ngi am juróom-ñaari gaw juróom-ñaari kii tëjukaay la am ndomb gi mu ngi am juróom-ñaari bootal ndomb gi dañ koy liggéey juróom-ñaari puso juróom-ñaari damiti lenset ak juróom-ñaari doomu kaane su fekkee ci wàllu kaaraange la ndomb gi képp koo xamante ni mu ngi ko takk du accidenté ci kàttanu yàlla ak mbaaxam nomba gi képp koo xamante ni mu ngi ko takk du dugg kaso kon loolu doy na ci kaaraange nomba gi képp koo xam ne mu ngi ko takk du dee ci ndox te képp koo xamante ni tamit mu ngi ko takk du du du dee ci safara te nomba gi dafay dox tamit ci wàllu ubbeeku képp ku ko takk sa wërsëg sa sarawaan day attan sa wërsëg te lépp loo xëy uti ko balaa jant beeso yàlla dana la ko jox si kàttun yàlla ak mbaaxam moo tax nomba gi lu baax a baax a baax la ci wàllu kaaraange moom tamit ci lay dox. am na solo trop leeral am na solo trop daanaka tamit mu gis nañ tamit mbiru kaaraange nekk na li nga xam ne lu am solo la jaamu yàlla képp kuy doomu aadama rek war nga mun wut sa bopp lu lay aar lu lay musal lu lay faagaagal lépp li nga xam ne balaa la wala musiba bu naroon dal sa kaw. xam naa tamit dañuy jàll ci question bu si topp rek bëggoon nañu waxtaanee tamit dañu seetlu ni jamono yi ñu toll daanaka ay nit dinañ jor seeni alal dénk ko ay nit jox leen ko wala ñu lebal leen ko wala ñu nekk di commerce di di jënd ak jaay lebal seen alal ay nit doomu aadama yooyu noonu tey jii pour ñu jot seen alal nit yi fay leen daanaka dafa nekk li nga xam ne day jafe si ñoom. waaw loolu dafa metti dangay gis ne dafa am doomu aadama yoo xamante ne dañoo ñeme àq ñeme bor da gis ne yow nga am soxla. bàyyi ñëpp ñëw am koo xamante ni dis nga ko sa soxla mu amoon loo xamante ni fu nga ko mënoon a dugal la mu jël alal jooju noonu lebal la waaye waaye waaye bu affaire bi sottee war nga ko mën a delloo xaalisam wala dangay gis ñoo xamante ni dañ leen liggéeyloo ba weer wi dee duñ leen fay seen xaalis wala ñu yore leen ay juróom benn weer juróom-ñaari weer wala at duñ leen fay seen xaalis te loolu tamit àq la wala yow nga nga ngay ngay nga dem leb doomu aadama pour amoon jafe-jafe boo xamante ni xamoo foo koy lijjantee su ko defee doomu aadama bi lebal la xaalis nga pare aajo bi faju nga ne man duma ko fay sama xaalis kon loolu dafa ñaaw waaye damay wax ne képp koo xamante ni yoral nañ la bor jaru ngay dem tribunal jaru ngay dem gendarmerie jaru ngay dem police soo ñëwee ci man jàmbu xeebu bi ci kàttan yàlla kooku dina la fay sa bor te doo ci am benn jafe-jafe moom la ñuy wax toxal bor fépp foo xamante ni mën na ko fa lijjantee ji dina ko lijjanti fay la ko même bu ko amul dina ko dem lebi keneen ñëw fay la ko moom la ñuy wax toxal bor moo tax képp koo xamante ni daal yoral nañ la xaalis jarul ngay dem benn si yoon soo ñëwee si jàmb xeeb bi ci kàttanu yàlla dina la dimbale ba nga jot sa xaalis boobu te du am benn jafe-jafe kooku noonu leb la dinañ ko teg lu métti loo xamante ni tant que fayut la moom du nekk si jàmb te dina xam ne fépp fu mu dem ñaan lu ji danañ ne ko yow kat am na koo xamante ni yaa ngi ko yoral àq yaa ngi ko yoral bor boo xamante ni soo ko fayut kat kenn mënul laa faj si jàngoro boobu noonu wala si jafe-jafe boobu noonu moo tax képp koo xamante ni daal yoral na yoral na yoral nañ ko bor su ñëwee si jàmb xeeb bi dinañ ko dimbale ci kàttanu yàlla macha allah leeral yi am na solo trop génnee ci pàcc boobu rek bëggoon nañu waxtaanee tamit mbirum nopp parce que dafa nekk li nga xam ne dañu koy dégg souvent ñu buggoon xam lan mooy nopp ana lan mooy njëriñu nopp. waa nopp soo ko déggee mooy boole mooy boole ñaari nit mooy ñi nga xamante ni ñaar ñi nga xamante ni seen diggante dafa amoon alaax dafa neexoon relation bi neexoon na jàmm ji bëri woon na mu jékki-jékki am ñoo xamante ni dox nañ ci loolu noonu ndax diggante boobu neexu leen ñu def ci loo xamante ni seen diggante dafay yàqu dafa nekk ci jafe-jafe ñu ñëw yàq seen diggante ba nga xamante ni dootoo leen nekk ci jàmmu wala nga gis nit ak patron ñuy liggéey tamit nga am koo xamante ni mu ci bureau boobu noonu gis ñaar ñi seen diggante neex na lool macha allah ñu ne kat diggante bi du fi neexee ñu dugg du def lu bon pour yàq diggante boobu noonu wala ñaar ñi nga xamante ni dañoo bëggante ba jàpp bës pour ta euh, def mariage nga gis ne am kenn koo xamante ni ci waajur yi ñu ne diggante bi neexuñu ñun daal sëy du fi am mu jaral leen lu nekk ba nga xamante ni ñooñu tamit seen diggante nekk si jafe-jafe loolu su ko defee képp koo xamante ni am na si jafe-jafe boobu noonu su ñëwee dinañ ko jàppale jàppale ko ci nga xamante ni moom la bëgganteel moo xam ki nga xamante ni yow da koo bëgg takk te pare woo pour caaxaan ak moom soo ñëwee ci kàttanu yàlla dinañ la dimbale jàppale la ba nga xamante ni dina la jublu ba soo demee ñaani ko dinañ la ko may képp koo xamante ni dafa bañoon ci famille bi dinañ ko jàpp ba nga xamante ni tamit boo demee ñaani ko moom du tala bañ waaye dafay pare pour ànd ak yéen ci li ngeen bëgg su fekkee ne nit ki nga xamante ni dafa nekk ak patron tamit ñu dox seen diggante ba nga xamante ni diggante bi yàqu na wala pour mu bugg diggante moom ak patron ñu juboo juboo bu neex su ñëwee dinañ ko dimbale ba nga xamante ni ñoom seen diggante du am problème ba ci famille yi da koy gis da gis famille boo xamante ni chaque jour dañuy tojante bopp di xiiroo ak ŋaayoo doo xam lan la rab mun na ko def jinne mun na ko def ay yàqkat mën nañ ko def su ko defee ñooñu tamit bu ñëwee wax ñu seen soxla danañ leen jàppale ba famille bi nekk ci jàmm delluwaat ci jàmm ba nga xamante ni duñ am jafe-jafe moo tax daal képp koo xamante ni dañuy sant nopp dañuy xool ndax yow lan nga si jublu su fekkee ne yow da see jublu pour yàq nit ki duñ la ko noobal su fekkee da see jublu nag pour seen diggante neex ngeen nekk si jàmm ak salaam dinañ la ko jàppal ba nga xamante ni li nga bëgg ci moom di ko am ci kàttanu yàlla loolu daal mënoon nañ ko def ko. macha allah donc mun nañ ne mbirum nopp nekk na li nga xam ne dafa dafa nekk li nga xam ne dafa am solo te képp koo xam ne lu baax rek moo la si jublu tey jii boo ñëwee si shahaadi dem borom li jaaba daanaka dina la ci dimbali dina la ci jàppale bu ñu génnee ci loolu tamit bëggoon nañ waxtaanee mbirum farum rab parce que dañ koy dégg souvent ñuy di lan mooy faru rab waa faru rab dafa nekk loo xamante ni lu sonal doomu aadama yi sonal na góor ñi sonal na jigéen ñi da gis góor gu xamante ni dafay pare pour takk soxna du mun a takk soxna da ngay gis góor goo xamante ni romb na sax aasam romb na sax bu yàgg pour mu waroon takk soxna takkul soxna ñu bëri naan kii nii lan moo ko teree takk soxna su su rombee ci koñ yi wala mu romb ay xaritam ñu naan ko takkal soxna demal takki soxna yow ragal nga wala ñàkk nga jom wala ay waajur yi di la sonal naa la demal takki soxna te xamuñ yow lan moo la sonal ba nga xamante ni mënoo takk soxna yow sa bopp di nga bëgg takk soxna waaye doo am fiti sax ne man damay wax waxi soxna parce que kooku noonu dafa am oh, àndandoor boo xamante ni àndandoor boobu moo ko sonal àndandoor boobu moo dox ci diggante moom ak jigéen ba nga xamante ni moom sax du bëgg jigéen xelam du nekk si jigéen dangay gis ñoo xamante ni tamit àndandoor da leen jàpp muy góor ñu nga xamante ñu dem ba di foyee seen sàkkara loolu àndandoor da koy def da ngay gis àndandoor bu la jàppee di nga dem ba nga xamante ni yow soo soo tëddee da ngay ànd sëy ak jigéen foo toll loolu àndandoor da koy def da ngay gis tamit ku nga xamante ni àndandoor da koy jàpp mu dem ba tëj wërsëgam lépp lu mu duggal loxoom du sotti su ko defee mu naan man est-ce que liggéeyuñ ma wala man est-ce que tëjuwu ma wala nangam fekk àndandoor bi moom moo tëj buntu wërsëgam ba nga xamante ni lépp lu mu lijjanti du sotti su fekkee jigéen la tamit comme noonu tamit lay def rek da jigéen boo xamante ni dafay am àndandoor fu mu toll day sëy ak bi daf koy gis ni jigéen yoo xamante ni àndandoo da leen di jàpp ba nga buñ buggee julli duñ mën a julli man am na ñoo xam ne nettali nañ mais ma buñ buggee julli duñ mën a julli ndax àndandoor moo leen sonal kon képp koo xamante ni daal am na àndandoor si kàttanu yàlla bu ñëwee dinañ ko dimbale dinañ ko ko fajal si kàttanu yàlla si loo xamante ni du bu juróom-ñaari fan dina ànd ak téere boo xamante ni dina ko takk dinañ ko defal cangat goo xamante ni dina ko sango cangat gi mu ànd ak reen Dakar ak xasu kàddu su ko defee ci kàttanu yàlla bu ko sangooye dangay gis ne loolu dina tàggook moom dina jubóog moom dootu ko yàqalati waaye dina ko dimbalee ti si kaatu yàlla daal képp koo xamante ne am na faru rab bu ñëwee dinañ ko dimbale si bunt boobu noonu. macha allah leeral am na solo trop tamit bëggoon nañu waxtaanee benn xew-xew parce que jamono jii dañuy gis ni am na ay doomu aadama yoo xam ne lépp loo xam ne dañ koy xëccoo rek buñ ci duggee rek dañuy daanaka dañ day nekk loo xam ne duñ ko am dañ koy ñàkk muy nekk ci mbirum concours warum examen wala mbirum papier lépp loo xam ne dañ koy xëccoo ak seen moroom yi rek daanaka day doon li nga xam ne daf leen di jafe. waaw loolu dafa am ñoo xamante ni da gis seen rawaani dañoo xaw a soxor ci seen côté wërsëg maanaam seen côté avenir dañ ciy soxor da gis ñoo xamante su fekkee mbiru xëccoo la da ngay gis ñooñu do doy suñ si ti seen bopp dañu xam ne lii nii man parewuma pour am ko da ngay gis yow nga ñu nit ñi di def examen ngay ngay yëngatu ci mbiru examen te examen ku xam ne mbiru xëccoo la kooku noonu da gis ne moom du ci am sax courage ne daxal ma def ko ndax moom xam na ne danaan man de su ma demee sax man damay perte waaw wala ñu nga xamante ni dañu xëccoo ci mbiru terrain moo tax da gis si nomba gi ni ñu ngi ko ñu ngi ko alxuraan lañ ko liggéey ñu ngi ko booleeg yàqu bukki moom lañ koy liggéeyee day dox ci mbiru xëccoo képp koo xamante ni dafay xëccoo moo xam ngay def concours moo xam ngay def euh, moo xam ngay xëccoo kër moo xam nga nga bëgg def loo loo xamante ni daal nit ñi ñu bari dañ ko bëgg te nañ siy jël bariwut ci kàttanu yàlla suñ ko liggéeyee lee nomba gi ba mu takk ko su fekkoon ne téeméeri nit ñoo koy xëccoo ñu ne kenn dong moo ko si jël su ko àttan yàlla su fekkee takk nga nomb gi di nga ko jot moom daal wàllu xëccoo damay wax ne dara weesu wut ci nomb gi ni képp koo xamante ni takk na ko ci kàttanu yàlla moo xam looy xëccoo bu fekkee terrain la bu fekkee place la bu fekkee da ngay def concours moo xam lépp loo munti xëccoo ci kàttanu yàlla buñ la ko defalee ba nga takk ko sa ndigg képp koo xëccool yow yaa koy daan loolu mun naa la ko garanti ci kàttanu yàlla. macha allah leeral yi am na solo trop. xam naa mënuñu tëj waxtaan bi sans pour autant waxtaanee mbirum ubbeeku parce que daanaka dañuy dégg doomu aadama yi des fois ñuy wax que lu ñu xëccoo rek buñ ko ñàkkee rek ñàkk ubbeeku moo koy waral ak tamit mbirum am-am bu gaaw. waaw ubbeeku dafa am solo si doomu aadama ndax doomu aadama bu fekkee amul benn xéewal da gis ne maanaam jëriñam du bëri. njëriñam du bëri waa dañoo demoon si ñu ne ñu ne kan moo gën a nay ñu ne ñu ñu ne ki nga xamante ni moo gën a nay mooy ku ñàkk. ndax ku ñàkk moom loo ko wax mu ne aw ma kooku du la fajal benn soxla moo tax ñu ne kooku moo gën a nay parce que amul dara lépp loo ko wax tamit danaa la aw ma parce que lu tax amut ndax dafa ñàkk moo tax moo tax damay wax ne képp koo xamante ni dafa bëgg ubbeeku ubbeeku dafay ko am bunt yu bëri yoo xam ne dañ koy liggéey ubbeeku ubbeeku dinañ ko liggéey ci garabu sump dinañ liggéey ci xas bi dinañ liggéey ci doom bi dinañ liggéey ci xob bi waaye sunguf boobu noonu képp koo xamante ni jox nañ la ko nga sangoo ko ci kàttanu yàlla di nga ubbeeku ubbeeku goo xamante ni ubbeeku jéggi dayo la ubbeeku dañ koy liggéeyee ci alam nasara dafa ànd ak xasu xasu maanaam doomu alam la àndal ak xasu new su ko defee ci kàttanu yàlla tamit loolu boo ko sangoo ci kàttanu yàlla di nga ubbeeku koo xamante ni ubbeeku gu jéggi dayo la waaye damay wax ne su fekkee alal ju gaaw la nag képp koo xamante dafa bëgg alal ju gaaw su ñëwee si ñun dinañ dimbalanteeg moom ndax loolu mbiru rawaan la dinañ tëjoog moom dinañ dimbalanteeg moom ba nga xamante ni dana jot ci alal jooju te du am benn fitna moo xam muy def loto moo xam lu mu munti def waa alal jooju yàlla dina ko teg ci loxoom te du am benn sacrifice boo xamante ni dina ko ko laaj ci alal ju gaaw jooju noonu. macha allah waxtaan bi am na solo trop leeral yi am na solo trop mais daanaka waxtu dafa nekk li nga xam ne daf ñu tënk xam naa dañuy ñëw bàyyi la nga tàggoog suñu mbokki internet yi. bu baax di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay waa Dakar People di leen yaa nuyu bu baax di leen wax ne la seen télé bi yàlla na ko yàlla gën a yëkkati yàlla na ko yàlla gën a màggal di leen di ñaanal tamit yéen ñi nga xamante ni yéen ciy liggéey yàlla na leen yàlla gën a dimbale ngeen gën see gis seen bopp ci barke yontu yàlla wa sallallahu alayhi di ñaanal képp koo xamante ni mu may seetaan su fekkee ne sama kàddu gi seetaan nga ko yàlla na la yàlla defal jàmm lépp lu nga yóotu tamit yàlla na la ko yàlla jox si barke yontu yàlla wa sallallahu alayhi ngi kontaan bu baax maa leen gërëm di leen sant di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala